waaw Fatka comme ni ñu ko waxee woon rek dañuy dugg ci arnaqueur yi nga xam ne dañu nekk ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. Ah, keroon ñu def émission ba pare vraiment bari na ñoo xam ne seet ni oote nañ intervenir wax ne mm-hmm. dal na leen. Mm-hmm. nga xam ne tey jii boo defoon micro trottoir di nga dina bari ñoo xam ne dund nañ ko. waaye li ñuy wax rek du ñu jóg ci di ko wax parce que toujours rek dafay am yu bees yoo xam ne seet ni dafay ñëw euh, ñenn ñi di ñëw aussi di nekk ay ay nouvelle wala ay nouveau yoo xam ne dañuy abonné wala ñuy soog di jot ci portable yeeg yu demee noonu ñeneen ñi ay mag la ñuy doon ba nga xamee si ñoom duñ nekk ci jàppason bi parce que boo ñu gisee daanaka booy seetaan documentaire yeeg yu demee noonu ñi nga xam ne ay mag lay doon ay plus de cinquante ans wala quarante ans mm-hmm. nga xam ne dañ leen arnaqué lu méttee métti ndax xam nga bu njëkkoon euh, ci Skype bi lañ leen daan nax mm-hmm. ñu ci bëri nag dañ daan nekk ay ay nigérien wala ay ñi nga xam ne dañuy nekk Côte d'Ivoire boo duggee ñu ngi lay wax ni la les huit euh, brodeurs brodeurs nga xam ne ñoo gën a riche ci kii bi Afrique ak escroc yi donc dañuy tourner autour de de de dans les pays de l'Afrique quoi ay Algérie yooyu noonu foofu la ñuy nekk donc mu mel ni ñoom dañ daan escroquer li nga xam ne c'est moom ñooy tubaab yi mais dem nañ ba ci biir aussi dañu ëlbati quoi duggaat ci pays Afrique yi di ñu ñun seen ñuy defante li nga xam ne moom la ñuy moom moom moom la def mais boobu aussi dañu utiliser waat li nga xam ne c'était mooy photo yi nga xam ne ñooy européens yi parce que dafa am kuy wax ni moom ki ko arnaqué woon ivoirien la bi muy wax ak moom et tout dem naa dem ba nga xamee set ni kër gi nga xam ne jaayoon na ko dem na ba jox na ko parce que bu ñu waxee ni 250 euros mu ni dem na ba versi ko lépp ci waa ji nu ko daan naxee bu ñu waree waxtaan affaire yu ne ay vidéo yi mu ko daan envoyé ak yu demee noonu. Mhm. Euh, sumiloo ko na ko boppam ba mu def nu. Mhm. ndekete bi muy wax ak moom yëpp moom mi ngi enregistré vidéo bi mu paree nag la ko teg nag di ko chantage nag. naan ko ay yónnee ma xaalis nangam nangam. fat ko loolu nekkoon loo xam ne c'était dafa bari woon ba nit ñi wax ci lu lu yàgg WhatsApp ñëw aussi la même chose appel vidéo yi ñu gis li nga xam ne ni moom lay def mais ba tey bu ñu wax ni lu lu yàgg la wala ba tey nit ñi dunduñu ko. parce que ñi nga xam ne ñoo koy dund bi émission bi jàll sax man après affaire yi daf ma jaaxal ba léegi nit ñi dañ lay oone la xayri loolu daal nañ ci gën a incité nañ ci gën a wax ndax euh, dañuy dugg ci Facebook bi créer ay faux compte yoo xamante ni du nekk ay seen ay compte jël ay photo yoo xamante ni dañuy dugg Google image jël fa ay image yu rafet ay bu fekkente ni yow jigéen nga ñoom benn góor lañ lay présenté góor bu rafet lay doon góor bu boo doon wala ni la man li nga yor man soxla ma ci dara. Mhm. Euh, parce que loolu li nga xamante ni moom laa ci euh, sama benn copine raconté ma ci li nga xam ne moom la dund. amoon na benn ameem bu muy wax ak moom di wax ak ma koy laaj fooy liggéeyee nan ngay def booy xëy gis nañu embouteillage foofu dafa bari et loolu la ko doon naxee nekk naa moom lu war a mat ay 2 mois li ñu lay def nag mooy dañ lay lancer ay message moment bi nga xam ne xëy na peut-être dañuy jàpp da mhm. mhm. di la wéetali ci ay message di la ñu commencé nag di la wan loolu ñu lay wax parce que femme bi nee na ba bi mu demee ba nga xam ne miin na waa ji toujours. da ko daan yee yax yeewu nga lekk nga ndax def nga ni di moom daal comme quoi que ko yéene jàmm yooyu noonu wala daf ko bëgg ba benn instant mu koy wax fi ngay liggéey nekk Côte d'Ivoire mm. am na nu mu doon demee sax mën naa laa may foofu benn oto mais nag du yow il suffit nga mën a fay dédouanement bi rek parce que du bari ay 200 millions yooyu lay doon foofu mm-hmm. affaire yooyu noonu ma mm-hmm. ah ne ko waaw mais ci loolu nag dama lay boole ki nga xam ne mooy sama assistant moom mi ngi Côte d'Ivoire mm-hmm. moo yore parking bi foofu noonu laaj ko photo kooku yónnee photom laaj ko passeport am kooku yónnee ko passeport am léegi nag passeport boobu ak photo boobu ñoom aussi dañ koy téye pour utiliser waat ko ci beneen beneen arnaque bu ñuy def bi mu ko defee loolu léegi nag mun ko ngay fay nag taxe bi nag da nga koy fay muy 200000. nee après ci la demee ba ci yàgg mu waxtaan ak benn xaritam kooku ni ko mais xanaa bu fekkente ne da ngay dédouané dédouanement bi fii lañ ko war a defee Sénégal. mais warul jël dédouane xaalis di ko yóbbu pour ñoom ñu war a mën a mu ni noonu mais nee na may ñu ko jàmm. femme bi nekk fële di ko woon ni ko man vraiment man daal xaw lii kan moo ko mës a gis man waa maa ngi koy jaayal depuis boobu léegi musuma may oto xam nga yow bëggee bu mu la bëgg tax mu mën a yëkkati oto bu toll nii nee na envoyé photo bi même di ko jox di ko di ko envoyé ay kii yooyu photo oto bi xam nga mu ne mi ngi nekk benn range bu rouge bu rafet sax loolu tamit di ko révéloo mhm. ci oto bi bis bu ma ci duggee man kay xam naa ne kon li may njëkk a def mooy naa dem jàngi euh, kii auto école genre yooyu noonu donc xam nga ci loolu tamit dañuy wax ni rêve boobu nga xam ne ngay rêve loo xamee c'est yow moomoo ko te liggéeyoo ko muy dugal ñu bari fat que ñu bari dañu bëggee mhm. parce que déjà luñ la woon rek nga jàpp ne yow loolu déjà yow yaa ko moom mhm. loolu après daf lay indil ñu dem ba léegi tubaab bi ñu bari yeewu nag xëy na peut-être mënatuñ leen ndax ñu duggaat nag comme ni ma ko waxee rek ci nit ñu ñuul ñi mhm. xam nga bu fekkente ni yow te en général buñ lay arnaqué aussi du ñu nekk ci ku amul dara mhm. soit dañ lay xool xam ne yow mi yaa ngi ci Facebook bi ñu dugg ci sa Facebook ba xam yow li ngay liggéey ak sa activité yu demee noonu foofu la ñuy jaar pour pour nax la. Euh, parce que bu fekkente ne xëy na peut-être yow da nga nekk euh, benn mag boo xamee seet ni amoo jëkkër mais gis nañ am nga ay bien am nga kër ak yu demee noonu ñoom aussi dañuy jéem a jouer sa sensibilité di la wax ne man dama la bëgg man mag nangam nangam yooyu noonu donc mag ñi aussi ci côté boobu dañ leen ci gaaw a dañ leen ci gaaw a nax te gis nga nag même Sénégal gi ñu ngi koy dund nag. xam nga dama leen loolu moom ci tubaab bi la woon waaye nii nii nii mhm. yaa ngi mhm. que euh, benn instant da nga xam sax ñu ngi lay nax de mais da a dem pour gagner confiance wu ki nga xam ne moo lay moo lay moo lay wan ay photo parce que photo bi nga gis da dem ba da koy aimé da koy bëgg parce que ñoom duñ la woon mukk loo xamante parce que li ñu lay woon yëpp lu adorable lay doon mm-hmm. léegi nag yow ngay rêvé yow aussi mm-hmm. léegi nag da dem ba ni kii naa jéem avancé lu may gën a dem di ko financé peut être mun na dem ba yërëm ma wala batukat fekk te kii wax ak yow amaana sax jigéen mooy wax ak yow en tant que jigéen wala mm-hmm. a ngi nopp maa ngi seetaan benn documentaire kooku di ko mais yéen bu ngeen dee arnaque nit ñi leen envoyé xaalis mu ne ko waa da ngay dem ba benn instant sax da ngay dem ba mujj gi sa xol bi day jeex mais doo am pexe. Mhm. parce que ñun ci loolu la ñuy dund. xam nga bu ñu demee ba wax ni xam nga ñoom ñoo nekk ñi nga xam ñoo gën a di li leen wane di leen nommer ñun nekk yoo xam dañu yor seen i oto yor seeni i kër ñoom aussi dañuy dañuy dañuy ànd ak le temps dañuy créer comme tout le monde lu ñu def tey bu ëllëgee bu ñu xamee ni lii nit ñi dinañ leen ci découvrir dañuy demaat feneen mhm. parce que ñoom ci loolu la ñuy ci loolu la amee seen richesse yow da xëy di liggéey di def sa compte wala ngay xëy di jaay di def sa activité ñoom aussi ñuy xëy nekk ci internet bi di xool lan la créer toujours pour dóor mhm. donc voilà parce leen wanee ñu ngi toog ci seen wéeru seen i oto ñenn ñu ngi kii xam nga ñu ngi leen wane ci ay ay endroit yoo xam ne c'est macha allah donc comme ñoom aussi ñu ngi def le tout pour continuer ci mbir moom parce que Fatka mu nekk li nga xam ne c'est nii dañ koy gis bu fekkente ni xëy na euh, loolu dafay am fii nii euh, nga gis ni euh, côté bi nga xam ne ci lañ gën a mën a naxee jeunes mooy da ngay voyager te comme ni ñu ko waxee rek dañuy créer benn compte nekk ak link des fois ñi nga xamee seeti ñooy centre d'appel yi wala xëy na peut-être ak yu demee noonu parce que toujours bu fekkente ne da nga oote di am ay renseignement ñoom dañ lay jox ay renseignement yi leer nañ ci foofu nga xam ne moom ngay oote muy site muy lu mën a doon même bu fekkente ne jox ay adresse sax naa la boo duggee fi parce que ñun xaalis bi ñun nga koy jox fii nga xaye foofu buñ la joxee ay ay code de vérification boo fa duggee da ngay xam ne loolu dafa exister mm-hmm. ni daal xam naa ni benn gang la benn kii boo xamante ni benn organisation lañ daal xam naa ni euh, boo xam ni pour mucc ci parfois bu fekkente ne da ngay dem ak sa xel rek di jaay di leen jaay ne maa leen gën a muus boo xefee dinañ la nax mhm. li ci gën daal mooy boo leen jotee nga xam ne ñi ay arnaqueur nga bloqué leen ba pare nga xam naa jeu bi ngeen mhm. nga topp leen tuuti rek mën nañ la nax mhm. Afrique fi mu nii metti na bon xam nañu fi mu toll jeunes yi bëgg nañu liggéey ñun ñëpp parce que ñi koy def yëpp daanaka ñoo ci même kii bi la nekk xam nañ ni dëkk bi metti na muy fii muy li ñu mooy dem voyage Canada mi ngi def ay ay ay kii mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wut ay ay jeunes. Mhm. pour liggéey. Mhm. loolu des fois da nga dugg si internet feneen koy gis ak yu demee noonu. waaw voilà léegi nag loolu euh, ko yor sama lii sama laa parce que bu fekkente ni góor nga jigéen mooy présenté wu. Mhm. xale bu jigéen bu rafet la ma ma yónnee. <laughs> mi ngi noonu. wallaay ndeysaan. ne ma ne ma yow daal dama laa gis nga neex ma. bu bëgg laa def ab xarit. xale bu jigéen bu rafet. noonu la ñuy def ma ne ko waaw. muy nu nu mu mu tàmbale mu yónnee ma ab texte nag bu gudd. ne ma ne ma ne ma damaa doon voyage yi ñëw fi dama fa am conteneur bu amee kii defi lii. Mm-hmm. wax a wax a wax ma ne ko man de fi mu toll nii 1000 francs yu ma lijjanti sama <laughs> njaboot gi laa ko yóbbu <laughs> mu daal di arrêté. <laughs> gis nga gis nga gis nga Mbaye Babacar loolu noonu moom moo ci moo ci moo ci moo ci bari. xam bu fekkente ne comme par yow góor nga nga gis benn xale bu jigéen bu rafet boo xam ne. Euh, daf lay révélo di la wan ay chambre naa la boo ñëwee fii la nekk affaire yooyu noonu léegi dama lay bi sama tonton moo ko yor wala koo xam dafa sës ci man léegi yow li mooy envoyé ma say photo ñu envoyé la yooyu noonu yow mi ngi commencé aussi moom di di dox ci samaayam parce que déjà photo yi envoyé envoyé ma sa photocopie carte d'identité envoyé ma sa passeport nangam ak boo amulee passeport nga dem uti ko mais ñoom nañu xam ne wax ji wax ji ñoom seen 1000 francs du génn ñëw ci yow mhm. mais toujours ñoom liñ lay wan daal mooy ay oto ay luxe ay ay hôtel mhm. Mhm. ay auberge la boo ñëwee premier ji nii la ñuy def chéri boo ñëwee nii dañ lay révélo dañ lay révélo tellement fatka da ngay sax waaru <laughs> donc guddi gi li ñuy a tëdd nga xamante ni dañuy dem ba lay won ay appareil vibreur naa la lii laa yor en attendant nga ñëw parce que dama la ma mhm. yàkkamti naa nga ñëw mhm. chéri wan ma noo mel nangam nangam mais li ci gën a doy waar mooy ñi nga xam ne dañuy summee ko wala ñuy photo seen yaram di leen ko jox mhm. parce que déjà il suffit sa photo dem wala sa image rek mooy commencé nañ la chantage ah mais loolu tamit xëy xam nga tamit benn instant loolu ku ko def yaa tooñ sa bopp. déedéet Fatka gis nga foofu bi ñuy naxee nit bu la derrière derrière les claviers si doon dig ay jamaaki or ah. sax ah jox wan ma wan wan ma sa yaram ma defal la lii yooyu noonu xëy na Fatka Fatka xam la may problème man nee leen benn affaire rek moo ci nekk mooy appel vidéo yi moom il faut nit ñi di ci taxaw pour ñu man la bañ a nax mm-hmm. mais gis nga ñoom bu ñu nekkee ci kii boobu noonu jamais ñu defal la appel vidéo jamais sax ñu wax nii nga dégg parce mm-hmm. boo demee ba oo machine ngay dégg mm-hmm. dañuy mel ne ay perroquet yuy wax mm-hmm. parce man mii loolu dal dama ñaata yoon dama la ni bu wax ñu naan ma insister parce bu ñu wax rek ni jàll na wala gis nga am ñoo xam ne sit ni moment bi ñuy wax ak yow ñu ngi soog am portable ñu ngi dugg ci facebook yi ñenn ñi ay mag lañ dañoo toogal faat ka gis nga dama leen ni arnaqueur ñu ngi taf dëkk bi laa la wax mm-hmm. ba tey jii nii ñu ngi arnaqué nit ñi ba pare ñu ngi ñu seen confiance yow man lii may wax nii nii man li may wax nii lu tax man ki ma poussé pour dama leen amagul un mois bi ñu ko naxee ak léegi mm-hmm. xale bu jigéen bi koy envoyé ay photo xaaju guddi la koy envoyé ay photo mm-hmm. ay façon yu nekk nag lu nekk lay def lu nekk la koy envoyé ay proverbe yoo xamante ne da nga naan di ko di ko ay hôtel ne moo yor ONG ngay boo ñëwee fii da ngay liggéey mu dem ba ci bi mu ne ko léegi nag comme lii léegi frais de dossier rek ngay joxe après nag bu desee ay dagg bi loolu après c'est autre chose man dinaa lijjanti temps yi dama def li xam nga te coronavirus bi nag gis nga noonu la gën a kiwee temps yi dama def lii dama def li xam nga suñu banque bi nangam nangam di tegal yoo xam ne yow nit ki boo nee ba bëgg ko da am ci moom confiance bu ko defee ñu la yónneel benn somme deux cent nga naa deux cent bariwul mm-hmm. nga àbb kii àbb kii bu fekkee mm-hmm. yoroo mm-hmm. te léegi dem na ba des ba dañuy touché sax li nga xamante mooy sa sensibilité parce que léegi benn ba tey ci wàllum arnaque da ngay toog ñu envoyé la ñu en ndeysaan ñu <laughs> ñi ñi dañoo neex dañ lay envoyé genre benn photo nit boo xamante ni dafa feebar ñu ne la ay dañoo bëgg nga ja nga jàppale ko ordonnance am fii la toll patati patata xam nga pour toucher sa sensibilité de ce ngay débourser yoo xamante ni di di leen ko envoyé fekk ni amaana sax yow nit kañ la eh, mosul feebar dara dara jotu ko xam nga yooyu tamit il faut que nit ñi ñu si bàyyi seen xel moo tax léegi kenn bëggatul sax dimbaleeti kenn léegi ci dëkk bi gis nga dëkk bi ci boppam mooy changé xam nga wax ni mhm. bu voyage amee ji ko ji ko changé te dëkk bi daanaka mën nañu dafa fees de ak ay étranger mhm. ñoom dañoo ñëw ci suñu dëkk bari na ci ñoo xam dañu ñëw fii mm-hmm. bari ñoo xam dañu jóg dem feneen da mm-hmm. dem bu finalement yow sa jikko ci boppam mooy changé mm-hmm. Sénégal li mu xamoon muy pays de la teranga bee boobu ñu fi ko paa bi yow foo xam ne bu ñëwee gis nga ni mi mel dafay mel ni ku def yaramu neen day mel ni ku toroxlu ci sa kanam doo comprendre da nga ko léegi nag yow ci loolu nga koy dimbalee nga ne xaarama sarax ko boo ko saraxee mu la xaarama ñaanal la yàgg nañ ko sa loxo rek yàqu nga boo def dootoo ko kiiwati mbaawaaka dootoo ca tal même am na boo xew ci jamono jii nga xamante ne da ngay jékki-jékki am ku la woone la dama doon dama yóbbu fenn dara kami oto laa yor damaa dem ba ci digg àll bi paan dimbali ah. ma ci crédit affaire fekk yooyu yëpp ay arnaque la yoo xamante ni bari na man man man moom yooyu yi ma ci dund mënuma mm-hmm. ko sax wa mm-hmm. benn waaye mës na ci woo mm-hmm. ne ma dama gis numéro téléphone ci guddi gi. dama la war a ñaanal wax a wax a wax ay sant yàlla ma ne ko ma ne ko sëñ bi mu a ma a ko yow xam nga man lan la mu ne ma lan nga ci lan ma a ko yow man na ngaa xam ban façon nit laa. lan laa lan laa xam ak lan la man mhm. ak lan laay liggéey ak lan laa def. Mhm. ndax xam nga ndax man ab commissaire laa wala wala Euh, wala ab juge wala ab magistrat wala dara. mu mm-hmm. ne kër coupé. ci gën a woo a woowee. Assane yow tamit daal am a mbay dafa tudd léegi euh, ñooñu di woote ñaan crédit. Euh, nan nga may woowee téléphone dama ñaan crédit. <laughs> waaw. waaw yow yaa di yoo xamante ne waaw te ba pare ba pare boo ko seetloo boo ko seetloo boo ko seetloo xëccal waxtaan wi lu waxtaan wi gudd gudd dina ko téye. maa la wax nii <laughs> oh, am na koo xam ne dama ko wax loo di ko wax loo di ko waxloo xam nga rek di ko mbalak di ko mbalak ba mujjee coupé. ah mais si ah. yu ndaw yoo xamante ni. Mm-hmm. boo si réfléchir tuuti. Mm-hmm. problème bi kay mooy ëppal si. mais mm-hmm. boo si réfléchir tuuti. tu t'en sors. dëgg la woote téléphone. ñaan crédit ça incohérence mënu ko mhm. weesu. parce que boo amul woon crédit du la woo. dëgg la ça ça c'est un problème non déjà xayri foofu problème dafa am. problème yu bëri sax dafa am. xawma la xamoo ma ñu ngi door a gisee ci internet lañ tase. amul lenn looy wax walla looy def ba ma jox la confiance à cent pour cent. Mhm. on peut se gis nga c'est vrai y a des couples qui se sont formés via le ba egg si mariage mais gisee dafay am bu ñu waxtaanee une semaine deux semaines mais on se voit. Mm-hmm. les les non gars yi dañuy tëgg rendez-vous on toog waxtaan. c'est-à-dire y a des yoo xamante ni tu dois l'exiger l'exiger de toi-même. na nga mm-hmm. exiger bopp ba pare yow avant nga ko exiger keneen. Mm-hmm. am na yoo xamante ni yow yaa protection boo xam yaa ko moomal sa bopp. kenn mënu la koo defal. c'est-à-dire nit ñi li ñu mën rek mooy ne la nangam ak nangam ak nangam am na ni nga si war a taxawee. Mhm. li si des nag yow la mais bu fekkee da nga ànd ak benn euh, yàkkamti. Mhm. benn naïveté ak bëggee. Mhm. parce que dafay bokk aussi. bëggee boobu tamit daf ñuy dugal si lu bëri. Euh, d'accord niir euh, waatale loola loo xamante ni. amoo ko. que ce soit de l'argent que ce soit des biens muy oto ak leneen lu mu doon ah, ah, donc ah, en tout cas en en résumé nañ nañuy doy doylu rek di bañ a di gis loo xamante heure bu ñu ko gisee mu fëkk suñuy bët. yooyu noonu yëpp mën nañu muccal ci li nga xamante moo di arnaque yi xayri ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mhm. ci li nga xamante ni indiloon nga ñu ko jox la rendez semaine prochaine incha allah waaw Fatou comme li Assane wax rek daf ci am solo nit ki mhm. daal bu fekkente ni da ngeen a nekk ci site de rencontre parce que bari léegi ci mhm. Facebook bi euh, kenn ku ci nekk ak âge bi nga soxla ak façon góor bi nga soxla boo duggee boo ko dañ la koy ngeen nekk direct daal mi di di am yu mel noonu woo tamit naa daal ak suñu ay téléphone ak yu demee noonu nit mhm. daal bu la wooyee moom moo war a présenté wu d' mais yow bu ko daal di jox sa tur da juum nangam nangam jaru ko euh, nekkaat tamit loo xam ne mooy vidéo mbaaye Euh, xëy na peut ak temps yu demee noonu moo ñu ko mm. mayul Charles aussi ni ma photo jàmbur yi du ko wane mais ñooñu ay arnaqueur naa koon mm-hmm. la mm-hmm. pour rek euh, yaa ma gën a comprendre ñu ngi ñëpp di ziar ñëpp <laughs> d'accord mm-hmm. merci beaucoup xëy waa Wakaam sama tante yooyu di leen jaale waat sama maam boobu décédé mardi passé maam Yacine Gueye maa ngi koy jaale mbokk yi ak famille yëpp d'accord yàlla na ko suñu borom ah, xaare aljana yaa si indi sama xel nii sax waa tëngee cëpp ah maa leen nii ci semaine bi euh, semaine bi lañu